et d' euh, si ma bëggoon euh, kii rek mooy. Mhm. xam nga benn jour maa ngi fi doon wax mais mën naa am gars yi bàyyiwuñ ci xel. gis nga affaire orsec yi buntu euh, amukaayu xaalis la pour. Mhm. ñu baree baree bare xam nga affaire orsec ñu ngi koy tuddee organisation des secours kooku ki ñuy wax. Famara Ibrahima Sagna moom moo fi indi concept boobu il fut le premier directeur de la protection civile mm mais moom lan mooy ORSEC ORSEC mooy bu problème am mooy bis bu ñu ko lancé maanaam yoon amatul ci procédure dépense publique kenn dootu respecté dara c'est-à-dire que ñuy kii dañuy régler gré à gré régler affaire yi kii c'est-à-dire yoon day tuxu ñu def affaire yu kii moo tax Ibrahima Famara Ibrahima Sagna à l'époque bi mu ko comprendre il avait fait évoluer le concept tuddee tutu ko organisation des secours parce que soo nee organisation des secours tu es dans l'urgence et quand tu dans l'urgence tu suspends les procédures te boo suspendre mhm. procédure yi c'est la porte ouverte euh, à malversation détournement et cetera moo tax Famara Famara Ibrahima Sarr da ko tudde de la réponse en sécurité sociale mhm. en sécurité civile nga xam ni léegi on est plus dans l'urgence mais on est aussi dans les procédures normales mais en mettant le cap sur l'anticipation nga xam ne du ñu mën a distraire kii bi malheureusement malheureusement euh, Sénégal waaw gis nga nu mu mujjee quoi voilà ñu àddu jëmale ci sagar ba nga xam ne mu ngay xeeñ sa làmbaay mu di sous préfet ba moo jox euh, ndigal gendarmerie ngir nag ñu aaye waa collectif ba euh, collectif bi nga xam ne dafay xeex ak waa teg ngir ñu jóge fa ñoom collectif ba bañ a yegg ci forage yi mu mel ni na askan wa ci boppam ne lu ne mel jaay ak doole dëgg la te lu nekk mën na see juddu ëllëg lu ci manti am bee ba ñu xam ne lu njin njaak euh, sous préfet ba euh, moo di njaak Sidou Diouf euh, Mor Fassa Ndiaye ñu teewlu seen i kàddu wax Abdoulaye Diagne. Le sous-préfet de Lambaye dafa jël une décision administrative di notifier à tous les collectifs de l'arrondissement pour que kenn bañatee teg sa tànk ci site ya ak